ngeen jëf mbokki Leewtoo TV comme ni ñu ko tàmm di defee tey ñu jóg euh, seetiwaat benn acteuru làmb tey nag ñu fekk ko ci biroom loolu day wane ne làmb amul ay analphabète rek ay intellectuel ñoo ko seex tey ñu ngi dajal ñu ngi dalal xalifa euh, Niang présent Tay Shinga waaw Assane maa ngi leen di fay di nuyu seen internautes yëpp yi nga xam ne ñoo leen di seetaan ci monde di nuyu le monde de la lutte di nuyu kilifa yëpp di nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal. làmb nekk na loo xam ni seen euh, seen passion la seen bëgg-bëgg la di ziar ñëpp ci ci bis bi. xalifa euh, tey den waxtaan yow ci euh, ak làmb actualité den wax ci départu Alioune Sarr arrivé arrivé Bira de baisse des licences wax également ci sa écurie muy Tay Shiga ak li bataille bi ngeen démarré démb contre ak Arels. mais bu ñu démarré dañuy wax ci Aliou Sarr régné na pendant vingt six ans maintenant dem na ban satisfa est-ce que am nga satisfaction ci renu ci reñu Aliou waaw départu Aliou Sarr ak reñam bon xëy na euh, reñu Aliou Sarr li ñu ci mën a wax mooy globalement euh, am satisfaction ci moom donc je crois que loolu monde de la lutte yëpp d'accord nañ ci ne Aliou Sarr vraiment bëgg na làmb. taxaw na taxawaayu kilifa ci làmb ndax làmb ku ne xam na fu mu toll woon te depuis ba mu fi ñëwee ba léegi làmb def na ay jéego yu mag a mag a mag a mag a mag daf di nag àdduna moo demee noonu structure boo ko yoree ba à un certain moment xëy na nit ñi sax dañuy yaakaar ne blocage bu am rek yow yaa ko def loolu rek moo ci nekk mais vraiment acteuru làmb yëpp dañu dañu d'accord ne Alioune Sarr def na ay jéego yu mag a mag a mag ci làmb te man jàpp naa ni sax Alioune dañ ko war a sargal honoré ko ci à hauteur de li nga xam ne moom la moom la moom la def ci làmb donc di ko ñaanal yàlla rek vraiment kilifa gu baax la kilifa gu mat kilifa la di ko ñaanal yàlla vraiment li nga xam ni moo des ci li nga xam ne moom la war a doxal suñu borom jàppale ko ba nga xam ni lépp lu mu bëgg ci ci ci ci ci ci ci ay mbiram ci ci ci sport bi de façon général suñ borom defal ko. Sarr dem na léegi Bira ñëw Bira Sène ni mu dooree est-ce que euh, neex na la. waaw Bira ni mu dooree je crois que am na solo am na solo dans la mesure où man li ma jot a gis mooy am na démarche boo xam ni mi ngi ci nekk mooy une démarche boo xam ni c'est participative boo xam ni vraiment acteur làmb yëpp mi ngi leen di dalal. donc loolu c'est un signe boo xam ni wane na ni kii xëy na acteur de développement la ak mo acteur du monde sportif la et que nekk na dans des disposition pour pour doxal làmb donc li ñuy ñaan rek mooy prérogative yi nga xam ni moom lañ ko jox ak mission bi nga xam ni moom lañ ko jox vraiment ñu jox ko ay moyens yi tolloog mission bi parce que généralement si suñ dëkk yi dañ lay jox mission bu tel ni gànnaar jox la ay moyens yoo xam ni mooy loolu te te vraiment làmb dafa metti làmb dafa bëri ay composantes et que war nañ daal di xool ci moyens yi di xool ci ressources yi nga xam ne moom la ñu joxe kilifa yi nga xam ne ñoo ñoo ŋànk làmb pour que ñu mën ko réorganiser parce que làmb dafa spécifique par rapport ak yeneen sport yi ba tax na képp ku ko bëgg a defar il faut nga am. beneen jàngat boo xam ni day différent ak jàngat classique bi nga xam ne moom la ñuy def ci sport yi parce que làmb suñu sport national la c'est différent des sports classiques yi nga xam ni dañ koy partagé ak yeneen yeneen yeneen yeneen dëkk yi wax nga moyen mais bi ñu sool euh, seetloo euh, Bira bi mu ñëwee dafa wàññi licence yi commencé na dialogue ba pare di pacifier milieu de la lutte boo waxee moyen wax wàññi licence est-ce que loolu c'est pas un peu contradictoire non je pense pas que mu nekk contradictoire xëy na wàññi bi ak kii bi. li acte yi muy posé c'est juste pour apaiser climat bi nga xam ni moo nekk ci làmb mais ku ne xam na ni sport CNG la ñu wax waxuñu fédération donc comité national de gestion donc prérogative wu ministère bi moo ko ko jox donc ministère nag bu ko joxee ay prérogatives je pense que daf ko war a jox les moyens yi nga xam ni à terme fii ak deux ans yi nga xam ni su fekkee deux ans lañ ko jox wala temps biñ ko jox dina mën a aboutir au au résultat yi nga xam ne moom la ñuy escompté je crois que nit soo ko joxee benn mission pour mu doxal la ko da ngay war a vraiment def en sorte que euh, moyens yi mu laaj yëpp ak nit ñi nga xam ni moom la war a àndal yëpp ñu ñu ñu boole ko ak ñoom pour que vraiment ñu mën a ñu mën a ñu mën a atteindre objectif yi ñu leen yi ñu leen assigné. moom mooy Tay Shinger est-ce que euh, mën nga ñu wax sa relation ak Eumeu Sène fan dooree. waaw sama relation ak Eumeu Sène fi mu dooree bon je crois que Eumeu Sène man magam laa magam laa dans la sens où sama kanam la juddoo seen kër ak suñu kër ça faisait pas cinquante mètres donc seen waa kër yëpp dañ magam mooy sama xarit parce que moom laa toll lool muy Pape Ngom mu nekk Italie ma koy ma koy nuyu de passage donc magam moo doon moo doon sama xarit ama seen nekk si làmb bi ñu yàgg ko jàppale nag yàgg dem ak moom ci ay di ko accompagner ci ci ci mbapat yi mu doon dem ak ay affaires yooyu donc ñun xëy na si monde sportif bi lañ nekkoon mais football bi lañ gënoonu nekk parce que dañ nekkoon ay acteur di du football nekk ay mo membre du mouvement associatif nekk si nawetaan yeeg yooyu di di di di di doxal Eumeu Sène nekkoon ci ci ay écuries donc bul Falé Pikine et cetera donc comme ñun ñëpp c'est une famille te Pikine ñëpp a xamante ku ci nekk rek fi ngay yëngu. war nga mën a di yëngu fii di di kii mais Eumeu seen moom sama raq la parce que sama kanam la juddoo man làmb boolewuñu xëy na dëkkandoo moo ñu boole parce que man ak moom ñoo bokk benn koñ bu ñu bu ñu juddoo man foofu laa juddoo moom foofu la juddoo ay magam foofu lañ juddoo donc loolu moo ñu booloo ba yàlla def. xëy na mu mu dem ba ci biir euh, ci biir carrière mu am ay jafe-jafe yoo xam ne am na ko ak fi mu nekkoon je crois que yooyu c'est des choses yoo xam ne day arriver dans la vie xëy na yàlla moo tuddoon na xëy na loolu mooy tax peut-être mu jël beneen trajectoire pour mën a dem donc bi loolu amee tamit depuis le début maa ngi si depuis 2011 je l'accompagne vraiment accompagner écurie bi concrètement pour que vraiment ñu mettre ko en place ci lañ ko mettre en place boobu j'étais pas président bu njëkk tay si nga c'était Sangoné Thiam bi nga xam ni suñ boroom jël na ko ñu koy ñaanal yàlla vraiment parce que mu doon grand boo xam ni daf ñu ëmboon daf ñu yiiroon ñu nekkoon ñëpp ci benn quartier Sangoné Thiam moo ci nekkoon bi mu fi jógee bi mu bi mu bi mu demee ba ci biir nag ay un an deux ans man ci laa ñëw nekk le le président depuis depuis depuis boobu ba léegi mais daal relation yooyu la ñu am mu doon relation yu fraternelle relation entre mag ak rakk parce véritablement du def dara loo xam ni du ma ne grand lii loo loo ci xam donc loolu tamit c'est c'est bon à dire. évoqué nga ko sànq Eumeu Sène ci bul faala nekkoon après moom fa problème génn mais pourquoi bu mu génnee euh, rallier wut euh, écurie yu nekku Pikine mais mu mu décidé créer écurie. waaw xam nga yooyu yëpp c'est des c'est des possibilités yu mënoon a am mais ci moment boobu ñu tolloo woon xëy na. mettroon en place euh, benn écurie boo xam ni dañuy identifier wu ci moom et que ñu ñu boole ci dugal ay xale yoo xam ne dinañ leen tàggat nga xam ne di nga leen mën a jël à bas dugal leen ci écurie bi ñuy tàggatook ñoom di waxtaan ak ñoom di leen inculquer les valeurs yi nga xam ne moom la sportif di am les valeurs yi nga xam ne moom la euh, mbër di am donc loolu moo doon logique bi nga xam ni moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu jàppoon ba ñu ba ñu créé mais véritablement waroon nañu mën a dugg ci beneen kii mais l'un dans l'autre je crois que ku nekk xëy na à un moment donné li nekk sa xel li nga jàpp ni xëy na mooy sa logique rek ci ngay demee mais ak lu mu ci mënti doon nekkul loo xam ni voilà dafa day créer dafa créer benn benn benn animosité wala benn kii au contraire dafa gën a rafet raffermir les liens yi nga xam ne moo am ci entre les écoles et les écuries yi nga xam ne ñoo nekk aux alentours parce que man mii di wax ak yow je n'ai aucun ama ama frontière pour dugg Pikine booloo awma frontière pour dem pour dem ci écurie Abim Ndiaye parce que ñooñu ñëpp si benn environnement la et que ñun ñëpp ñoo ñoo juddandoo ñoo yarandoo te que xamante ne. 2011 Taye si nga juddu 2019 mu nekk roi des arènes satisfaction. waaw ah, satisfaction la satisfaction la parce que bi biñ ci du biñ ci dugg noonu concrètement objectif bi dafa leeroon parce que Eumeu Sène ñun dañ ko xam dañ ko xam dans la mesure où yàgg nañ ko topp mbapat gis ko muy bëre bëre mu ko doon fontoo moom mu jaral ko lépp jaral ko mu yàq jàngam de très tôt jaral ko mu yàq léppam consacré wu rek ci bëre bëree ko gënal lu mu am donc nit ku mel noonu xëy na nit tamit li mu bëgg rek ci lañ koy ci nga koy mën a jàppale pour pour pour mu mën a avancer donc ci loolu lañ jógee juste après voilà première défaite bu mu amoon ak moo Lo ñu ñu jël ko ci des conditions yu difficiles c'était des moments difficiles ñu jël ko waxtaan xam ni sport la sport am ak ñàkk la ñu liggéey rek moo ci moo moo mu continuer jëlaa takkaat ay dàllam takkaat ngembam liggéey ba suñu borom may ko li nga xam ne mooy mu nekk roi des arènes ñu ko ci sant yàlla bu baax di sant ñëpp ñi nga xam ne xëy na jàppale nañ ko ci biir ci lu ñu gis wala lu ñu gisul ci pour que mu mu def loolu. ngeen jël roi des arènes malheureusement pour vous je peux dire un an plus ngeen pertaat ko ci Modou Lo nan nga dundee soirée boobu. waaw soirée boobu ni ñu ko dundee euh, pour dire vrai mooy soirée boo xam ne dalay metti parce que sa champion boo ko amee mu ñëw perte un combat perte ko peut-être si condition yi mu ko perte donc dina dina nekk loo xam ne dalay metti mais su fekkee sportif nga tamit danga koy teg rek si cadre sport ak lu ñu ci mënti wax ak lu ñu ci mënti def et également. Euh, sport la woon ñaari doomu Sénégal ñoo doon bëre suñu borom mooy may ndam boo xoolee jour bi ngay daan Bombardier boo xoolee jour bi ngay doon daan Balla Gaye neexoon na ci yow donc tey suñu borom su ñëwee ne nii laa dogal donc doo mën rek en tant que musulman doo mën lu dul accepter ko te xam ne sport noonu la da ngay tey tey da ngay daan suba ñu daal mosoo fi gis mbër moo xam ne dañ ne xëy na mosul daanu. donc tôt ou tard da ngay daanu donc loolu la rek il faut être sportif et ñun ñëpp ñoo bokk et ki nga xam ni moo la daan nga nga nga bañ ko waaw ki honoré ko xam ni moom tamit euh, tuuram moo ñëw yow sa tuur bu ñëwaatee rek dañ ci dañ ciy jot. est-ce que du erreur de casting de votre part surtout staff bi ngeen nekk roi des arènes une année plus tard ngeen jël Modou mi nga xam ne ni peut-être mbër yu gën a tëj ci làmb ci la bokk est que du erreur de casting de waaw non bu kooku analyse la bu nit mën a def te dañ ko koy nangul mais nun à notre niveau fi ñu tolloon nekkul woon erreur de casting parce que tout simplement dafa am lu xam ne lu bëri moo xam ne moo doxoon ci digg bi jarul sax ñu ci ñu ciy revenir aat mais. Euh, ba euh, euh, Modou Lo bi ñu koy jël nekkul ne woon dafa am defet bi ñu koy jël boobu dafa nekk ci combat xëy na ñu proposé ñu ko proposé ñu loo xam ne xëy na moo ñu ko jaral ñu ñu ñu ñu jël ko et que pour diir ko aussi Modou Lo tamit mbër la ko mbër yëpp donc mënuñu fi nekk rek di wax ay ëmba seen bombardier ëmba seen ballage jëmale ñeneen ñi tamit ci lañ bokk képp koo xam ne da nga nekk ci posture roi des arènes danga nga war a mën a tendre la main ñi nga xam ne xëy na Euh, jotaguñu jotaguñu roi des arènes bi on peut nekk fii rek que ñeenti roi wala ñaari roi ñetti roi di di wër-wërloo kii bi seen biir loolu du am sens ci sportif bi parce que ñeneen ñi tamit ci lañu ñu bokk comme ni ko Modou defee mu ngi nii jël na Ama balde euh, di di bëri moom te vraiment ñuy ñaan yàlla suñu borom defal defal ñu ci sutura ñun waa Pikine ci Ama nga xam ne suñu raq la ñu koy ñaanal yàlla vraiment combat bi nga xam ne moom la jël suñu borom defal ko ci ndam lu kawe kawe kawe kawe apparemment euh, tay si nga écurie Défi la koi bi ngeen jógee ci Modou ngeen dalaat ci Lac de pour euh, pourquoi ngeen nangu jëlaat Lac de Guiers puisque daanoon ngeen ko bëri ngeen deux deux fois niil daan ko pour pourquoi ngeen jël ko une troisième waaw bon pourquoi ñu jël ko c'est sport la ki nga ñoom ñëpp ay champion lañ ay champion lañ ay sénégalais lañ amul kenn ku ci war a toog rek ne man sama kii dépassé naa ko waruma bëreeg moom wala tolloowuma ak moom loolu làmb xamul loolu làmb daal yéen a koy wax ci kaw la garab la ci kaw lay ci kaw lay fekkante donc combat la boo xam ni peut-être promoteur bi ñu waxtaanal bëgg na ko ñu waxtaan ci ci condition yi nga xam ni bëgg nañ ko ñu ficelé ko et que Lac de tamit champion ba champion la parce que benn defet la fi am te vraiment nekk na mbër moo xam ni mbër mbër exemple la ci mbër yi parce que vraiment jusqu'à preuve du contraire amul dara loo xam ne def na ko ci làmb loo xam ne dañ naan dañ naan a càpp donc dañ ko mbër la moo xam ne Eumeu seen war na mën a war na mën a bëreeg moom d'autant plus que combat bu njëkk bi nii la woon combat deuxième combat bi nekk combat bu gaaw waaw man mi di wax ak yow sax kii bi daa fe gisu waaw si télé bi laa gisee laa gisee jël bi donc pour diir rek ni voilà combat bu bu bu logique la ak lu ñu ci mën a wax mais dañuy ñaan yàlla rek suñu borom. dimbali ñu ba ñu ñu fekk ko ak jàmm waaw préparer ko ak jàmm et ñaan yàlla suñu borom defal ñu ci ndam. mbër bu daanoo souvent prochain combat mi day xool adversaire bu xaw a abordable xam ne ni yaakaar na ne war na jaar jàll da ngeen yaakaar ne da ngeen di jaar jàll ci Lac de Guiers moo tax ngeen jël ko wala. waa non pour pour diir vrai nag du ne du question du question ja yaakaar ni dañuy jaar jàll donc Eumeu seen toll ci làmb fu muy moy moytoo mbër wala fu muy kii parce que su fekkee toll na foofu rek vraiment peut-être mu arrêté moo gën donc dafa nekk champion xëy na ñenn mbër yi dañuy aspirer pour bëre moom moom tamit mu jàpp na ne xëy na ba léegi mën naa kiiw ak ñoom mën naa bëre ñoom làmb moo leen boole parce que laal Lac de Guiers lu ñu mën a wax ci champion yi la bokk. donc euh, je crois que loolu nekkul loo xam ni daal ay kii la parce que Eumeu Sène moom vraiment combat bu yomb sax arrangé wu ko pour dire vrai Eumeu Sène ba ma ko xamee ba léegi combat bu yomb combat buñ ne Eumeu Sène mooy daan combat boobu boo xefee rek nga am ci loola naqar waaye combat buñ ne tey Eumeu Sène ñu rey ko ah jàppal jàppal di kii te instant bii moom je crois que voilà ni mu comment combat bi ni mu commencé am na solo ñu ngi cokkaasante di waxante ay mbir mais yooyu yëpp ci cadre ci cadre la làmb la vraiment buñ ko yóbbu fu dul ci cadre làmb nañ ko gérer ci cadre làmb rek ñu positiver ko ak lu mu mën a métti métti métti xam ne tamit ay sportif la sportif des fois ñu tate la xool sa tempérament xool sa niveau euh, de kii fu mu toll mais yooyu yëpp je crois que ci ci sport la bokk. ko juju euh, Eumeu Sène kii Lac de Guiers temps def na benn sortie ne Eumeu Sène bëggul euh, booy mi ànd ak Pikine wax jooju ba nga ko déggee lu mu la def. non wax jooju personnellement bi ma ko déggee defuma dara pour dire vrai defuma dara parce que du wax bu du bu bu bu bu bu waaw boo xam ni am naa ci firnde ko honnêtement nekkul loo xam ne kii na dama jàpp ni rek xëy na adversaire la. buy wax ak moromu adversaire bi am na droit wax ko loo xam ni peut-être da koy faire sortir de ses gants wax ko loo xam ni peut-être da koy perturber ak affaire yooyu ci stratégie boobu la nekk te xam nga comme moom tamit bon peut-être xëy na du point de vue làmb wala du point de vue xam nga yàlla mooy bind nit am na ñoo xam ne suñu waxee mu neex suñu jëfee mu neex suñu suñu feccee mu neex. xëy na moom xëy na stratégie boobu rek la am pour peut-être joxe loolu ci ci làmb bi dañ ko koy nangul et que voilà on prend ça de façon positive bon xëy na man lu luñ ma wax directement xëy na moo tax metti wu mais xëy na ki ñu ko wax xëy na dina ko metti mais bon loolu ak lu mënti am Pikine gars yi xamante nañ waaw je crois que Eumeu su amoon loo xam ni da koy da koy def pour nit daanu wala nit daanu je crois Modou du ko dóor mu daanu et que c'est ça la moo koy wax saytaane waxul dëgg mais yàq na xel. Euh, yaakaaroo ne wax jooju perturbé na tuuti Eumeu Sène. non perturbé non mun na ko merloo parce que nit suñ la waxalee loo xam ne xëy na defoo ko wala jàppoo ko mën na la metti mais après bon xel du jëriñ lu dul xalaat après da ngay xalaat euh, def analyse xool toog xam ni vraiment kii xëy na li mu wax nii da ko wax pour perturber mais yow tamit expérience c'est du vécu. vécu la boo xam ne à chaque moment nga jànkonteeg ak problème sa expérience ngay utiliser pour surmonter ko et je crois que Eumeu Sène loolu si loolu la nekk fi mu toll nii. heureusement peut euh, de def na fa geste bu naaj bi nga gisee loolu noo ko noo ko noo ko noo ko dundee. waaw non c'est-à-dire lay wax la rek Pikine dafa ndaw. c'est-à-dire que peut-être ku dëkkul feneen ku dëkk feneen. mooy yaakaar ni Pikine c'est des gangs de trucs man mii di wax ak yow boo ñaa damay déggante moom. chaque eh, instant je dama koy proférer ay conseil ama su ma ko gisee dama koy préféré ay conseil dama koy parce que ñun su suñuy raq lañ amul kenn koo xam ne wa am nga pour yéene nit lu bon wala li yéene lu lu ñaaw loolu amul cest que nit boo amee lu muy yéene nit lu ñaaw mu yéene ko boppam lu rafet pour dem ak moom man loolu laa gëm fii kenn yoro fii yëfu yëfu kenn àdduna bi moo demee noonu c'est vrai que Euh, gars yi des fois ñu wax ay wax yoo xam ni ça peut prêter a équivoque mais yooyu yëpp si si àdduna la bokk nit ki da ngay mature da ngay bu la yàlla dénkee nga am yenn at yi yooyu yaay matural sa bopp nekkatoo xale boo xam ni buñ ne bërët a nga ni lii dem na yaay am dal am tey boo xam ni dinga nga mën a voilà luñ la wax nga analyser ko xool li ci jub ak lu ci jubul et loo xam ni yow amoo ci ay preuve ay wax wax waxu kese warul warul warul de nit ba muy def loo xam ne waratu ko def et que Boy Niang le connaissant et que c' est un intellectuel parmi les lutteurs c' est un gars boo xam ne il est posé il est réfléchi donc même su fekkoon loolu am Boy Niang ne va pas tenir euh, compte de cela parce que niveau am may ko muy kii peut être am na yenn mbër yu mu doon doon peut être ñu am ci kii mais moom. niveau am may ko muy am yenn comportement yi parce que sportif de haut niveau la et que sport ku ne xam na ni waaw c'est le travail paye. ok li may damay évoquer benn trophée bu suñu làmb initier muy suñu làmb door gis naa ne année yëpp euh, Tay Shinger day bokk ci cinq premières yi mais mënul jël trophée bi lan moo leen manqué. waaw non pour rappeler rek peut-être xëy na bi ñu ko tuddee suñu lamb d'or lañ ko jëlul mais ñun jëloon nañ ko je crois j'oublie la la date jëloon nañ ko peut-être bu ñu ko indee mais yooyu yëpp c'est esprit de de de kii la parce que ñi ko jël tamit dañ ko mérité. donc dama ciy rendre hommage à Gorgui Ciss di nga waakaay kaay baax ñi nga xam ne ren saison bi ñu passé ñoo ko jël ñu doon ñu ñoo nekk ñoo xam ni ñu ñu ñu ràññeeku ci leen ci lamb di rendraale hommage ñi nga xam ne ñoo ko jëloon muy waa Yoff yi par le biais de di doyen Baytir di leen jaajëfal di leen rendre vraiment hommage ci ci ci trophée yooyu nga xam ni jël nañ ko lépp rek c'est pour le monde du sport sport dafa positif et lamb ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi li a def boole ci acteur yëpp ñu bañ ko def ay mbirum voilà affaire bi affaire ñii la wala ñi ñi mën a wax ñi mën a def am na ñoo xam ni peut-être seen activité permettre leen ñuy toog di def yenn affaires yi xëy na am na ñoo xam ni voilà mais làmb ñun on n'a pas de complexe que ñu wax ñu de vous des intérêts amuñu benn complexe pour dire que ñun dañoo bëgg làmb et làmb mooy suñu sport national moom la ñu bëgg chaque dimanche dañuy dem stade toog seetaan làmb moo ñu gënal ñuy dem di seetaan leneen.